boo leen bëggee am mbooleem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés fu ñu bind abonné bu leen fàtte bés fu ñu def cloche bi foo leen mën a ci àdduna bi ngir ngeen mën am mbooleem vidéo yi fi bàyyikoo mbokk jullit yi ginnaaw bu ñu santee suñu ko toroxlul ci ak njub di ko ñaan mu sore moo dem ndëngate ñi seere ne sayduna muhammad mooy ndaw li mujj yónni ci mbindéef yi ca matale àdduna sëpp mu doon ndimbal ci jullit yi yëpp doon njàqare ci yéefar yëpp ñu ngi julli ci moom ak i ak i di ñaan yàlla dooli xéewal ak barke ak sunu yaakaar seyxan alxadim radiallahu taala anhu dolli ci moom ngërëm ak i njabootam ak i taalibeem di ko ñaanal mboolem kilifay diine yi fi jiitu di ñaanal ki nga xam ne moo fi teewal sëriñ Muntaxa yàlla yàggal ko fi te dolli ko wéram ba eggale ay naalam te ñu ànd ko moom ak mboolem ay rakkam ak mboolem taalibe bi ñaanal mboolem kilifa yi yëpp yàlla defal na jàmm ak tawfeex mbokk yi sunu xutba bi ñu ngi ko jëmee ci weer wu tedd gi ñu nekk muy weeru rajab te nekk ci mujj gi ginnaaw bu ma dénk dénkee sama bopp fàttali ko sama bopp ragal yàlla ak topp ko ñu ngi leen fàttali ngeen góorgóorlu ci yàlla ak topp ndigal suñu borom te wattandiku ñaaw téef yi ak tooñ yi xam ne sunu borom bi ñuy bind ñu jaamu ko rekk moo tax mu bind ñu waaye dañoo tere itam ñu tooñ suñ boroomi jaam yi rawatina suñ borom bi ñu bind nag moom weer bi nag la weerun sopp ku ciy woor weerun sopp ku ciy julli ay naafila yu bari weerul sopp ku ci sarxe lu bari suñu borom dafa wax ci alxuraan ne weer yi nga xam ne moom la tërale adduna ci weer ak ñaar la yoo xam ne ba mu bindee asamaan ak suuf rek ci la bindoon ne ci weer ak ñaar ci la addunay dox ci biir fukki weer ak ñaar nag am na ci arbaatu ashurun xurum ñeenti weer yoo xam ne ñoo gën a màgg ci fukki weer ak ñaar yooyu fukki weer ak ñeenti weer yooyu nag rajo bi ñu nekk da caa bokk weeru diggi ak tabaski ak tamxarit mooy ñett yooyu noo tegaloo waaye rajab bii nag moom la ñuy rajo ar far fard moom daa wéet waaye weer am solo mun bëgg ku ci fonk jaamu yàlla la yonent bi sallallahu wax na ne am na ca àjjana ak dex bu tudd rajab dex ga day day weex tàll mel na meew ca moo daq lem <clears throat> képp koo xam ne war nga benn bis ci weeru rajab nag wax na ne dañ la nàndal ci dex googee waxaat ne képp koo xam ne woor nga ci ci addis boo xam ne waxaat ne képp koo xam ne woor nga ci rajab benn bis yaa ko woor at yéen a yem nga am nga ku woor at waaye képp koo xam ne woor nga ci ñaari fan daan la sa juróom ñaari bunti sawara képp koo xam ne woor nga juróom fan gis na la juróom ñaari bunti àjjana képp koo xam ne woor nga ci fukki fan aajo joo am soo borom daan la ko fajal ku ci woor fukk fan ak juróom wax na ne day am kuy woor yunaadi munaadin ci samaay naan na du sangam sunu borom jéggal na la say bàkkaar yépp te da koy wattee aw yiw naka noonu lu gën lu kor gën a bari rek ci weer wi nga ci ëpp ab kon nag <clears throat> képp koo xam ne fekkoon na nëgëne si woor ko ci góorgóorlu ba boo mënta woor li ci des fan nag nga fexe ba am ci benn bis ba ñaari bés ba ñetti fan ndax yiwu baree ngi ci saalika diinu xayiba attaque ne falaa taslimu fii na anfusum bu leen fexe ba bu leen tooñ ci weer yi ñeenti weer yi bu leen tooñ seen borom bu leen ci tooñ seen moroom ndax bakaar boo def ci weer yi sunu borom da koy ful bokkut ak bàkkaar yi nga defoon ci weer yi ko njëkk waaye boo ci defee lu baax itam sunu boroom da koy ful kon nag nañ ci góorgóorlu bu baax lu man ci woor ñu koy def lu man ci nafila ñu koy def <clears throat> luñ man ci saraxa dimbalee sa mbokkum njiit ñu koy def ak lépp loo xam ne baax na aw yiw la nga di ko def say tuub bu baax delloo suñu bopp suñu boroom ndax weeru tuub la ndax bokk na weer yi xam ne suñu boroom a ci da ciy nangu ak tuub te eh? yoon bi sa sala taala wax na ne bépp xol boo xam ne ma ngi dal ñu ci tudd yàlla yërma yi suñu waroon dëkk ci wet yëpp kon koy tudd yàlla yërma yi suñu borom fu mu toll day ñëw ci yow kon nan ko fonk ci def lu baax ci dimbalee ci julli ci woor nga xam ne lépp lu nu am ëllëg fii tey jii mooy bisub jëf waaye kenn du compter li nga jëf nag ëllëg nag moom kenn du fa jëf dara foofu la ñuy lu ñuy jëf kon nag nañ góorgóorlu ba bala ñoo dem ñu jëf fa loo xam ne bu ñu bu ñuy natt fekk ñu am fa dara ñu xam ne ci weer wi ñu nekk ci la reñaan gi nga yonent bi sallallahu alayhi wa defoon Makka ñëw baytul maqdis soo fa yéegee dem ca sunu borom ci guddi ñaar fukk ak juróom-ñaar ji ëpp ci ñi nee na ci la amee woon muy guddi gu am solo gu màgg ndax ci la lii ñuy def muy julli juróom ci lañ amee ndigal li ci sunu borom yonente bay idaal ko muy sunu sëriñ guddi googee ca la Jibril ñëwee ànd ak Mikaayil fekk ko ca néegam muy nelaw ñu yee ko waajal ko daal koy yóbbu ba ca kaaba ga ñu xar dënd ba raxas ko ba mu sedd wicc ci ndoxum sam-sam ñu laabal ko ba mu set wicc dellaa ko na meloon daal koy sotti ndox moo xam ne gëm ak xikam rek la nekk moo ne ci xol ba xol bi fees dell ak gëm yàlla ak i mbóot ñu soog koo jëlee foofa nag ca kaaba ga yóbbu ko baytul maqdis gi nga xam ne moom la saay saay si téye ne di ci sonal jullit yi yóbbu ko foofa moo def moo def ak yonent yëpp mu màggal ko lool bi mu jógee Màkka fas yu wax buraax moom lañ ko indil tegal ko ay taj yu rafet laab ko ñu ko defee Jibril moo koy wom wommat ànd ak Mikaayil ban egg ca Baytul Maqdis ban demee fa fekk fa yonent yëpp ña nga dajee foofu ngeen di ko sargal mu ne ñoom daa den fay jiite ak julli ba ku ne màggal ko ñoom ñëpp Moustapha jógee nag jëm ci boromam ànd ak Jibril moom lañuy wax mihraaj Jibril ànd ak moom mu ràmb juróom-ñaari asamaan yëpp asamaan su ne fekk na fa ab yonent mu nuyoo moom kooka sargal ko mu jàll kiiraay yi suñu borom yëpp suñu borom ubbil ko ko ba mu egg ci sidratul muntaha sidratul muntaha ba mu fa eggee nag lay dégg xarim ak suñu borom bi muy bindee ni muy kéecceejee ba mu eggee foofu la ko dégg jibil na ko nag man fii laa mën a yem <clears throat> sama daraja fii la yem yow nag yaay jàll jëm ci xadratul rahman yoonte bi continuer jàll ay ñëw yu mag yoo xam ne du gis nekk ci diggante bi waaye suñu boom jàllale ko bari yooyu yëpp ba mu egg ba sutura yi amoon yëpp sunu dindi ko ba mu egg ci sunu borom suñu borom feeñu ko woo ko ba mu jege ko wa kallamahu rabbuhu mu wax ak moom li mu bëgg a wax moom lépp waaye mu def ko ci jaxe satan di yeewu duy gént daa jàkkaarloog jëmmam ni mu ni mel mu wax ak moom ci guddi googee ci biir jataay boobee sunu borom wan na ko fa ay kéemaan yu bare bëri loo tax mu li nuriyahu min ayatina audience bi da suñ suñ borom da ko jubloon ngeen wan ko ay kéemaan ndax fa wala ko wane ci yoon wi tolluwaay baytul maqdis mu julli fa noonee wan ko asamaan sépp wan ko yonent yëpp wan ko sidratul muntaha wan ko juróom-ñaari asamaan yépp way wan ko baytul mahmur nga xam ne mooy kaaba asa kaaba gi xam ne moo nekk si asamaan moom la wax fa la baytul mahmur nekk wax na ne ka foofa bët bu set juróom-ñaar fukki junniy malaaka danañ fa dugg di jaamu yàlla ba bu subaa ñoon te ñooñu duñ des mukk ba àddina tukki ba ba sa juróom-ñaari ko junni yu bees yu ñëwaat dafa jaamu yàlla ba yow ma xiyam foofa yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci ojaas boo bele ko ko wane waa àjjana wan ko waa kon moo tax ne nuriihim boobu la amee loolu lépp ci la suñu borom joxe itam julli juróom juróom fukk julli la ko joxoon yoo xam ne dañ koy war a julli guddi ak bëccëg waaye bi mu wàccee ba ci sayiduna Muusa alayhi salaam ba mu ko waxee loolu dañu ko ah loolu dis na ëpp na sama sa njaboot attunu ko dama ñu wàññi la ko muy baaxante bu demee ci juróom mu dile si mu ëpp na ba tey koy def su ko def ba mu juróom mu dikkee juróom mu ne ko ndax man lii sama xet li leen do li ma leen li leen joxal matul loolu te mënuñ ko matale yonent bi nag ne ko rus naa delluwaat ci suñu boor nag da ko ñaanaat moo tax ñuy julli juróom waaye teewul nag képp koo xam ne matal nga julli juróom yi da am tooyaa bay ku juróom fukki julli kon nag <clears throat> julli juróom mooy ponk bi ëpp solo ci lislaam moo xam ne képp koo ko matal sa diine dëgër na waaye képp koo xam ne rek woyefal nga ko xam ne sa diine woyof na ndax mooy li nga xam ne moom lay njëkk a seet ëllëg bu yéwénee li koy lépp mën naa yéwén bu yéwul nag li ci man na soo ko may seet sax mooy mooy mel ne parrainage bi ñu génn rek boo ko boo jàllee julli daal nga mën ngaa jàll kon nag lu mat a fonk la ñu koy taxawe te di koy dem ci jàkka yi ku ko man te bañ koo woyofal te xam ne suñu tubaab yi yaakaar fu mu mas a taxaw balaa def dara dafay julli ba mu jógee foofa ci la ko sunu moroom wàcce waat mu wàccaat baytul maqdis waaraat fa alburaax mu delloo ko makka te lépp ci guddi gi booba dara yënguut daa mel ne xefaqet wax na ne bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam lal bi mu tëddoon bi mu delsee tàngoor yu lal bi ba tey séddagul nga xam ne suñu borom moo am kattan ak may li mu def lépp lépp lépp ci xefaqet la ko def voyage yeeg lépp bi mu desee la bi mu tëddoon tàngoor bi dayagul ba tey loolu mooy won kàttanu suñu borom ne lu ne mën na ko ndax ojaas li ndax lépp daa mel ne xefat ci moom ba mu xëyee nag mu daal di dikk di ko ne ba mu xëyee suba muy nettali nag li mu gis doxam boobu waaye ba nga ko waxee ñu baree bari la naa ci ci dem egg na fa mu nag moom dem naa baytul maqdis loo xam ne ay junniy kilomètre la ñu koy dox ci ay weer wala ay fan yi fan nga ne dem naa ko waxee am ñu daal di gis Aboubacar saas na ko ah sa waa ji egg na fu mu jëmul na moom léegi may woote dem dem na bayti maqdis dem na ca boroomam mu ne ah bu ko waxee de dëgg la moom moo tax ñu tudd ko Aboubacar as-Siddiq ba mu déggee rek xam na ne waaye moom du wax lu lu lu lu lu wérut waaye Aboo Jahlin nag ak mbooloo mam àndal ñëpp daal koy weddi nag ne kii dox na far nag léegi nag ginnaaw fii la toll daal foofu la foofu la kon nag guddi gu am solo dañ koy màggal baax mu ñu amati nag ñun murid yi suñu xaasi bopp muy guddi goo xam ne ci la Cheikh Mouhamadou Fadal radiallahu taala anhu ci la gano adduna muy jàmbaari lislaam di murid mag bi nga xam ne liggéey na Serigne Touba liggéey na lislaam liggéey boo xam ne ñëpp ñu ngi ciy jariñu ki nga xam ne mooy jaayoon ak njuréeram doomi Serigne Touba li muy neex neex on ak taalibe ko gënalul dafa jaay ak njuréeram jënde ko ak taalibe kon bis moom itam ci la gane woon àdduna kon ñun ñaari xeer lañ ci buñ sànnee ñaar lañ ci jam daan ci jot daan ci jam màggal guddi yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye daan ci jam màggal juddug Cheikh Mamadou Fadl radiyallahu ndokkal mu yëpp ci ndokkal julli yëpp di ko ñaanal moom it li mu liggéeyal yàlla liggéeyal ko bàyyam bu baax ba sunu boom nangul ko te di ko ful jamonoy ne alxaafan mudaxafatan allahuma barik lana fi rajab wa sahban wa ballighna ramadan allahumma ij'alna min at-tawwabin wa min al-mutatahhirin rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban boo leen bëggee am mbooleem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés fu ñu bind bu leen fàtte bés fu ñu def cloche bi foo leen mën ne ci àdduna bi ngir ngeen mën a am mbooleem vidéo yi fi bàyyikoo